wa ñi ngeeg euh, kenn ko xamne xamna aji sar bu baax euh, umpaañam la euh, ñu fas yéene ak mom waxtaan sa diggante ak aji ci walu mbokk lan la aji man yumpaañam la ndax jaayam la doon seyel ci jikir wa bu nekk ak mom jikir tamit ndax aji nekkoon na aja avant muy ñew dakar mm-hmm. bi mu ñëwee nekk ci fir boobu man maa ngi yor foofu restaurant. Mhm. bi ma fa yoree restaurant gisanteeg nijaay mi bëggante moom mu ñëw nekk ci man avant boobu nijaayam takku ma. Mhm. bi mu nekkee ci man daan ma jàppale ba mu yàgg mu ne liggéey bi dafa met mhm. fekk ci fan yooyu noonu jëloon na fa téléphone jàmbur boo xam ne ni iPhone la woon ba xale yu góor yi mool yooyu sax indi woon fa ay xeex foofu ay xeex yu metti ñu jël ko rawale ko yóbbu ko benn dëkk bu ñuy wax yaayam ca gannaaw jifiir mm-hmm. ci côté booy dem ki palma ci euh, Fimela laa ma nga ci côté yoonu campement Ndangan mm-hmm. waaw léegi bi mu nekkee foofu ba mu yàgg mu jugee fa na day dem fii dakaar benn dëkk bu ñuy wax benn koñ bu ñuy wax Grand Yoff la wax na fa lay dem mm-hmm. Grand Yoff benn tantam moo fa nekk yoroon fa restaurant moom tamit bi mu ñëwee yàggu fa dara mu daal di day dem Pikine wuti foofu liggéey ci benn magu yaayam. Mhm. mu bàyyi foofu tantam bi ne Grand Yoff bi mu demee Pikine ci magu yaayam bi mu liggéey foofu tuuti ne am na liggéey mu woo sama jëkkër ne ko am na liggéey ci benn salon massage bi. Mhm. ne am na liggéey ci salon massage ma jëkkër ne ko waa baax na yow de kenn dafa xamul loo bëgg ndax lu la dégg tey bu subaa ñu dégg rek liggéey mu ne ko fii moom dinaa fi liggéey ñu dem ay fan benn xaritam ne ma aji de. nee na instant bii dafa am buzz ndax day maase ku ñuy wax Ousmane Sonko mu ne ko kooku ci lan lay liggéey man sax waykat la mu ne ma kooku ci ministre affaire ministre politique yi lay liggéey ma nekk ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na yàlla na ko ci yàlla jàppale ñu demaat demaat demaat ba ca kanam mm-hmm. mu woote waat ci sama téléphone boobu nijaay mi téléphone bi mu wootee sama téléphone ma ne ko kooka la doomu jàmbur mu ne ma waa tante ma ne ko ça va ñu nuyeen pare ndax sama téléphone bi bu ma la deful bu ma ko yokkul def ko may libre. Mhm. du ma la dégg mooy téléphone yi doon jar cinq kii simple Italie. moo mhm. ne ko xaaral ma jox ma jox ma ko ma dem ca mbaar mi fi ma doon toggee noonu tam am mbaar. Mhm. boobu maa ngi togg añ ceebu keccax ma yëkkati nii sama cin. bi ma ko wuyoo pare ma yëkkati ko jox ko nijaayam ñëw nag sëgg foofu di yekk. ma dégg ci téléphone mu naan nijaayam man di nijaay. dafa am liggéey bu ñu ma bëgg def loo nijaayam ne ko loolu ban liggéey la mu ne ko liggéey bi de dañ ne Ousmane Sonko bi may maase naa ko waxal dara nijaayam ne bu fekkee loolu la nañ la ci jox loo xam ne bu ëllëgee dina la mën a jëriñ ma sëggi xool ko ne ko hmm? mu ne ko nañ la jox boo xam ne ni bu ëllëgee dinañ ci mën a jëriñu sax njaboot jëriñu ci ndax alalu euh, politique alalu baytimaan la dégg nga Mm-hmm. alalu baytimaan la loo ci laaj dañ la koy jox te luñ la jox ne alalu àdduna bi lépp lañ la jox. Mm-hmm. mu daal di ne ko waa baax na ñu teg ci ay fan ma ne ko yow aji luñ koy waxal ku nekk nga wax aji songo aji songo te wax ji mi ngi bëgg a bëri kii lii muy def nii lan la mu ne ma sa yoon nekku ci man xam naa da ngaa mos a teg bët sama famille bi ma ne ko man amoon may tegante bët ci sa famille parce que man sa famille ma ne ko man soxna dong laaj kon oma leen lu ma ci lu ma ci dogalul mu a ma yow sax da nga waxoon nga bëgg a def commerce ma ne ko waaw ma ne ko xam nga benn mbir mu ne ah ma ne ko coow li lu fii man dina fexe ba dinaa dem wax ne yow aji lii ay fen la mun ne ma ah ma ne ko ne am nga fi tam ma ne ko capable naa lu ëpp loolu mos naa la ba xaañ xeer mu ne ma mu ko bii paa dinaa dem ma wax ne lii du dëgg mu ne ma dinaa xam ndax am nga fit boobu ma na ko am naa ko mi ne ma ndax sa commerce bi nga doon wax yaa ma ne ko maa ngi ci boobu woo ko mu ne ma dinaa leen jox trois cent mille nga liggéey nga bàyyil ma ay waxi Adji Sarr bu ci wax ma ne ko dinaa ci wax bu dee moo tax nga jox ma trois cent mille denc leen seen trois cent mille wax ba sàggar xeeñ man dëkk li wax nii xam naa ne suñ ko déggee sax dinañ xam ne man sama baat na ndax maa ko wax gars yi ma xam na ma ay famille ma xam nañ ma mais li may wax nëbbu ma ko waxuma ko moom moo ko def man maa ko wax waaw. kon daal mbir mi yow jàpp nga leen ne complot la bu leer. bu leer ni midi ndax nijaayam ci la bokk. Mhm. bu leer ni midi laa la wax nii foofu maa mhm. nag boobu ba léegi nag yow amul ay menaces ak dara yuy dal sa kaw. kenn waxaguma dara. Mhm. léegi aji Sarr moom amu leen benn xibaar ci moom. man de dégg ko ma benn xibaar ci moom. Hmm. est-ce que nijaayam boobu mën nañ xam kan la. ah nijaayam na mu dëgg yàlla moom mënu ma joxe tuur. Hmm. fu ngeen ko gisee daal mu ngi ji fir su ngeen ko bëggee gis tamit mi ngi ji fir. bu hmm. ngeen liggéey ji fir moom di ngeen xam. lan la nijaayam boobu di liggéey. nijaayam boobu day dem ci dérènement rek ji. day dem géej gi maare ji waaw. waaw lu ci kàddu nga bëgg a yokk ci mbir mi rek pour mu gën a leer. man daal li ma ci mën a wax mooy kan xale la mais xale bu yàgg luubal la moom aji lañ koy wax mais yéen aji saar ngeen xam yéen waa Ndakaar yi koy wax aji saar mais ñun aji raabi saar lañ xam aji raabi saar lañ xam xale bu yàgg luubal la te daawut tee loxoom tamit. teewuloon loxoom bi dara da daan yóbbu daal li ma ci gën a xam daal mooy kan gor booy lekk lekkal lu lew man daal loolu laa amoon comme lu ma koy wax waaw. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci leeral yi ñu indil jërëjëf. maa ngi laa